fait un fait important euh, c'est pour la première fois ñu dem ci ay élections ci biir processus bi ñu organiser amnistie ci biir processus bi génne ay candidats yoo xam ne ñu ngi woon kaso élargir des milliers de de de de de yoo xamante ni kenn xamul seen situation juridique carcérale corse carcérale loolu yëpp. Euh, sénégalais di nga ko lire comme une situation où Macky a adoubé a adoubé le candidat Bassirou Diomaye. maanaam ci wolof da koo jàppale. da koo jàppale. Ah loolu lañ jàpp beneen bi mooy aussi il faut pas qu'on s'en man li ma jàpp moo di effectivement on a fait un dialogue euh, c'est le dialogue national. Hmm. def nañu deux fois dialogue am na benn dialogue boo xamante ni. effectivement bon bon vraiment vraiment non c'est un dialogue c'est un dialogue mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler le dernier dialogue ça n'a pas eu lieu le dernier dialogue jàpp nañu ne am na ah, xam nga li ma la wax non parce que dialogue moo tax dialogue moo mën a tax euh, ñu mën a élargir ay candidats ñu mën leen a euh, permettre ñu dem defi campagne ensuite dialogue moom mën a tax ay détenus ñu bàyyi leen jëlal jëlal pour jëlal par exemple ñu bàyyi mille détenus chaque détenu avec sa famille et ses mais yooyu yëpp day impacté beneen bi aussi mooy jàpp naa ni li nga wax euh, war nañ ko mën a war nañ ko mën a saytu aussi parce que aussi bu ñu jëlee candidat au sein de Benno Bokk Yaakaar muy le candidat Amadou Ba moom aussi dafa war a jël ay responsabilités ba mu jeex takk ba mu jeex takk et ça pour man loolu yëpp dafa def dafa def défaillance moi à une semaine de la campagne ou bien deux semaines avant la ou bien une semaine avant la fin de la campagne moi-même je déplorais la communication euh, visuelle de notre de notre candidat au niveau de Dakar. <laughs> dans les panels dans les panels euh, du de de Benno Bokk Yaakaar je disais que je ne sentais pas n'est-ce pas sur le plan visuel l'image de notre candidat à Dakar moi personnellement je me je le disais deuxième chose aussi. Euh, gulet ñuy def candidature ñuy def euh, élection boo xamante ne pratiquement tu ne pas un comité électoral départemental tu ne sens pas un comité électoral dans les arrondissements